الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom nu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi sunu xutba tey ab laaj la bu kenn ku nekk war a laaj boppam mooy hal yuhibbuni allah ndax man yàlla bëgg na ma ku mu doon ci ñun nekk jullit seede ne yàlla kenn la muhammad yàllaa ko yónni war nga toog bis suba la walla ngoon la guddi la walla bëccëg la nga laaj sa bopp laaj bi ndax man yàlla bëgg na ma dafa am benn boroom xam-xam bu tudd Cheikh Ali At-Tantawi rahimahullah dafa musa toog benn bis laaj bi daal di koy dikkal mu yëg ne cofeelu yàlla tabaraka wa taala mbëggeelam ku yàlla bëgg sa àdduna ak sa àllaaxira yépp jag na mbokk jullit yi pour nu natt mbëggeelub yàlla dañuy joxe ay misaal mais doo ko mën a tollale ak mbëggeelub nit tey kenn ci ñun su ko soxnaam bëggee rek day texe su ko ay doomam bëggee su ko benn kilifa ci dëkk bi bëggee kenn ci ñun tey mbokk yi bu ko président de la république bëggoon lan ngeen di xalaat ci kooku mooy texe na dañ naan texe na àdduna kii kay problème am jeex na kenn ci ñun tey bu ko benn kilifa diine bëggoon ci sunu kilifa yi nu nekkal tey di dund ci kilifa yu mag yi ñu yëg ne diw kat daa bëgg diw lan lañ lay seedeel waa jooju rombal yooyu ñëpp nag nga natt ko ci yàlla moo bëgg jaam bi moo tax abubakrin siddiq nee na man mësumaa bëgg ndomba tànk ab pal lu dul karag ba yonent bi waxee ne suñu xëyee suba jaasi ji war a ubbi xaybar dinaa ko jox koo xam ne yàlla bëgg na ko yonent yàlla bi bëgg na ko Abubakar nee na keroog de bëgg naa ndomba tànk koo xam ne yàllaa ko bëgg yonent yàlla bee ko bëgg kooku man bëgg naa mu nekk man Abubakar ni Siddiq nee na ñu julli fajar ba pare noonu elimaan di jàkkaarloo weeg mbooloo mi nee na yonent bi ne ñu jàkk di ñu xool nee na mu tàmbalee ndey joor di xool di romb gaa yi ku mu romb ma ne man la ku mu romb ma ne man la ba yonent bi ne ma jàkk daan may romb mu ne ma topp bët yi ndeysaan dëng tëdd topp bët yi nee na ma ne kon de Umar la ñu ne ne yonent bi romb Umar mu ne kon Ousmane la yonent bi romb Ousmane ba première sàppe bi jeex takk yonent bi dem deuxième sàppe di xool waa jooju nga xam ne yàllaa kub yonentam noo ko bëgg ba sàppe bi jeex yonent bi xool jàkk jëpp gisul waa jooju mu ne ana Seydina Ali ñu ne ko dafa wànneen mënta ñëw ndax du gis bët yeey metti mu ne dem leen ngeen indi ko kenn ci saxaaba yi jóg daal di jàpp ci loxo yi dem ba këram jàpp ci loxo bi indi ko ñëw xuus mbooloo mi ba teg ko ci kanamu yonent bi yonent bi daal di koy ñaanal ci bët yi bët yi wér yonent bi génne jaasi ji ne ko yow la yàllaa ko yonent bi bëgg am yaay ubbi tey xare bi muy xaybar mbokk yi cheikh ali al tantawi dafa laaj boppam hal yuhibbuni allah ndax yàlla bëgg na ma mu ne raawadat ni haza sual fa tazakkartu anna mahabbata allah taala li ibadi taati li asbaabin wa awsaaf zakaraha fi kitaabihi alkarim nee na dama laaj-laaj bi sama bopp daf ma dikkal ma laaj sama bopp ndax man yàlla bëgg na ma waaye mu ne ma fàttaliku ne mbëggeelu yàlla tabaraka wa taala ci jaamam yi daf leen di dikke ay sabab ak ay melokaan dafa am ay sabab ay asbaab ak ay melokaan yoo xam ne ku mel nii rek yàlla bëgg na la ku def lii rek yàlla bëgg na la mu ne ma daal di jóg jël téere alquran di xool sama bopp ndax man bokk naa ci ñooñu yàlla bëgg ndax kat laaj bi amaluma ko tontu bi ma waree ba sonn aw ma tontu laaj bi ndax man yàlla bëgg na ma aw ma tontu mu ne ma gàddu téere yàlla bi amaana laaj bii ma soxla di ko laaj sama bopp amaana ma fekk ci téere yàlla bi lu dalal sama xel mu ne fa wajadtu annahu yuhibbul muttaqin ah ba ma ubbee rek ma dajeeg aaya inna allaha yuhibbul muttaqin yàlla bëgg na ñi ragal yàlla waaye mu ne wala aj wala ajra'u an ahsabu nafsi minhum waaye li sama problème mooy ah man bokkuma ci ñi ragal yàlla man ragaluma yàlla yàlla nee na ñi ragal yàlla laa bëgg man xool naa sama bopp xam naa sama bopp natt naa sama bopp ci aaya bi ma gis ne man bokkuma ci mu ne ma continue fa wajadtuhu yuhibbu lmuhsini sabirin ma gis ne yàlla bëgg na ñi muñ ma nattaat sama bopp comme bokkuma ma fee ci ñi ragal yàlla xanaa dinaa bokk ci ñu muñ hee fa tazakkartu qillata sabri ma fàttaliku ne man maa fi gën a gaaw a mer man munu maa muñ dara maa fi dàq jàmbat maa fi dàq kepetu man bokkuma ci muñkat yi ñaara ngoogu rëcc na ma de bokkuma ci ñi ragal yàlla bokkuma ci muñkat yi mu ne ma dem rek ba tey ma bañ a découragé ma yaakaaraat fa wajadtuhu yuhibbul mujahidin ma fekk yàlla bëgg na ñi ngànnaayu jër seeni ngànnaay dugg ci xare yi di xarek noonu yàlla yi yàlla bëgg na mujahidun yooyu nee na ma fàttaliku ne man maa fi gën a tayal te ku tayal moom munoo nekk mujahid kon bokkuma ci ñooñu nee na ba tey ma continuer di dem fa wajadtu yuhibbul muhsinin ma fekk yàlla bëgg na ñi rafetal wa ma abadani an hadihi boobu nag laa gën a sori man bokkuma ci ñi ragal yàlla bokkuma ci muñkat yi bokkuma ci mujahidun yi bokkuma ci ñiy rafetal mu ne wa ma abadani an hadihi ay waay maa sori lii nee na nag foofu tawaqaftu an mutabaati lbahs xashitu la ajidu fi nafsi shay'an yuhibuni llahu li ajlihi mu ne ma taxaw nag gëstu bi mënatumaa dem ndax lu ma ubbi ci alxuraan rek fekk man bokkuma ci lu ma ubbi rek bokkuma ci aaya bu ma romb bokkuma ci mu ne ma taxaw waaye nag maa ngi xalaat man naka laa war a def ak lan laa war a def tey ba ma bokk ci ñi yàlla bëgg nee na may dem di xalaat di wër di gëstu ba ma romb ab aaya inna allaha yuhibbu tawabin yàlla bëgg na ñi tuub mu ne ma xam ne nag man bii laa moom fii laa bokk mënumaa bokk ci ñi ragal yàlla mënumaa bokk ci muñkat yi mënumaa bokk ci ñi jihaad mënumaa bokk ci ñi rafetal waaye nag mën naa bokk ci ñi tuub inna allaha yuhibbu tawabin mu ne fa fahimtu annaha lii wa li amsaali ma xam ne aaya bi maa ko moom man ak ñi mel ne man allahu akbar nee na fekk keroog nag laa tàmbali fa axastu utamtimu astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi ma tàmbali keroog di jéggalu yàlla tabaraka wa taala ndax ma bokk ci ñii nga xam ne ñooñu la ñu wax ne ñoom ñoo bëgg yàlla tabaraka wa taala ñoom ñooy tuub ñii tuub ñooñu bokk nañ ci ñi nga xam ne yàlla tabaraka wa taala bëgg na leen waa mbokk jullit yi hubbullahu taala bëggeelu yàlla cofeelu yàlla ci jaamam kooku dafa bokk ci maqaama yi gën a rëy ci ab jaami di am ndax mooy jublu yàlla tabaraka wa taala sonn ci yoonam ngir nga texe àdduna waaye nga texe àllaaxira sunu borom subhanahu wa taala muy misaal way gëm yàlla yi mu ne yaa ayyuha alladina amanu man yartadda minkum an diini fa sawfa yati llahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuuna yéen ñi gëm yàlla képp ku murtat ci yéen bàyyi diineem ne yëg ne lorul yàlla deful yàlla dara ku bàyyi sa diine topp ay caaxaan topp ay wax topp ay def defle bàyyi sa boroom bàyyi lislaam bàyyi alquran bàyyi sayduna muhammad man yartadda minkum képp ku murtat bàyyi diine yàlla nee na fa sawfa yati llahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuuna dinaa la fene ñukk man yàlla ma remplacer la ñeneen ñoo xam ne bëgg naa leen bëgg nañ ma kan moo njëkk a bëgg moom yàlla moo leen njëkk a bëgg moo tax ku bëggul yàlla perte nga ku amul yàlla perte nga ku am yàlla am nga lépp ku amul yàlla amoo dara ak lu mu mun a am loo mën a am amoo dara ixwatal iman sunu borom nee na adillatin ala almuminin aizza ala alkafirin waa da ngeen a bëgg a jël teddange jox ko yéeféer yi ñu tedd jullit yi torox loolu ngeen bëgg aizzatin ala almuminin azilla ala almuminin da ngeen a bëgg a toroxal jullit yàlla nee na jullit mooy ku tedd waaye yéeféer mooy ku texee di lu tax ñoom jullit yu jaahiduna fi sabilillah dañuy xare ci yoonu yàlla wala yaxaafuuna lawmata laim ñoom day ragaluñu benn yeddeelu aji yedd mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala nit su bëggee yàlla bëgg ko ana lan lay def ba moom mbindeef moomu bëgg yàlla bëgg ko ana lan moo war a nekk taxawaayam wala mbëggeelu yàlla tabaraka wa taala mazahir fan lay feeñ hubbullah loolu day feeñ ci jaam bi mu gënal ko yàlla gënal ko leneen lu dul yàlla mahabbatullah hiya ithaaru mahabbatihi ala ma siwaa yàlla da lay gënal lu dul yàlla wa min annaas man yattaxis min duni illahi andaadan yuhibunahum ka hubbillah waaye walladina amanu ashaddu hubban lillah am na ci nit ñi ñoo xam ne dañoo jàpp ñeneen jàpp leneen ku dul yàlla bëgg ko lu raw nu nu bëggee yàlla nga loolu tey boo koy wax Sénégal moom ñëpp teg nañ ci bët bëgg ay nit bëgg ay néew bëgg ay bammeel bëgg ay photo bëgg bëgg bëgg lu raw nu nu war a bëgg yàlla yàlla mu ne waaye ñi gëm yàlla walladina amanu ashaddu hubban lillah kon bëgg yàlla mu ngi njëkk a feeñ ci yàlla gënal la lu dul yàlla loolu nag nu mu mun a nekkee mooy al iltizam bi kulli ma amara bi mooy da ngay jàpp ci lépp lum la indil moom yàlla pour ñu xam ne yow bëgg nga yàlla nañu xool li yàlla indi foo ci tollu li mu tere foo ci tollu li koy merloo li mu bëggul kenn ku def yow foo ci tollu yàlla li mu tere foo ci tollu li yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi foo ci tollu li yonent bi tere foo ci tollu boo bëggee xam ne bëgg nga yàlla rek nattal sa bopp foofu mbokk yi sarti bëgg yàlla surutul mahabbatu lillahi taala mooy ittibaau char wal ixsaanu fi l amal suñuy bëgg xam ne nit bëgg na yàlla walla dañuy xool fan la toll ci sharia islam ci jëfe ko ak rafetal gim koy rafetal ci jëfe gim koy jëfee suñ bëggee natt doomu aadama boobu lu tax xaysu la tasixu almahabba wala tuqbalu daawa illa bima yuwaafiquha min alamal alsalih min alamali alsalih ndax kat mbëggeel du mën a wér même waykat ba day wax ne inna almuhibba liman yuhibbuhu mutia soo bëggee dara da ngay topp ki nga bëgg ndaw si ba mu la bëggee daf laa topp dafa bàyyi ndeyam ak baayam topp la foo ko yóbbu mu dem sëy ànd ak yow waa ji ba mu bëggee liggéey dafa bàyyi lépp topp waa liggéeyukaay ba heure buñ ko wax ngay xëy ngay xëy heure buñ ko wàcc loo lay wàcc luñ ko liggéey loo loolu lay liggéey yow nga ne bëgg nga yàlla waaye munoo yeewu fajar julli yow nga ne bëgg nga yàlla waaye kenn du gis sa loxo alquranul karim yow nga ne bëgg nga yàlla waaye kenn du fekk ci yow place boo toog di tudd yàlla yow nga ne bëgg nga yàlla waaye sa yoon ci sharia bëgg naa yàlla bëgg naa yàlla bëgg bëgg naa kenn mus laa fekk nga tàntal yàlla saa yu ñu fekkee sa tànt leneen la wala keneen la waaye du yàlla ixwatal iman aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله أسباب المعينة على محبة الله ki bëgg bëgg yàlla ki bëgg yàlla nekk soppeem ki bëgg nekk xaritu yàlla ay mbir a ngi nii yoo xam ne dana ko dimbali pour mu bëgg yàlla ba ca jiitu mooy al ixlaasu al ibaada lillahi waxda nga lawaay ba bëggee yàlla bëgg la jaamu gii nga koy jaamu nang ko sellal nang ko def ngir moom rek ndax loolu la la sant wa ma umiru illa li yabudullah muxlisina lahu ddin mu noo ne man dama bëgg yàlla bëgg ma te li ngay defal yàlla defaloo ko yàlla saa yoo waxee da nga ne yàlla ak yàlla ak yàlla ak loolu tey ci biir Sénégal ñaata la yàlla ak yàlla ak su neexee yàlla ak diw waaw léegi sax kenn dootul wax bu neexee yàlla dañ naan bu neexee diw rek al ixlaas sellal ixlaasul ibada lillah jaamu gi foog ñu jox ko yàlla kese ñu bañ koo dendalee kenn wala lenn ñaareel mooy tilaawatul quraanul karim di jàng alquran wa tadabburu fi maani jàng alquran téere bi soo ko yore di ko jàng danga koy jàng jàng koo xam ne ci yow lañ ko wàcce la borom xam-xam ba doon def doom ji saa yu xëyee fekk doom ji yor kaamil bi di jàng mu ne ko yaa ngi jàng alquran mu ne ko waaw yaa ngi jàng alquran mu ne ko waaw yaa ngi jàng alxuraan mu ne ko waaw ba mu tolloog nangami at lu tolloog fukki at wala lu ko ëpp benn bis doom ji maar sonn tayal papa ji ne ko yaa ngi jàng alxuraan mu ne papa taxawal yow fukki at a ngi nii nga naan ma chaque jour yaa ngi jàng alxuraan mu ne waaw tey de dinaa tontu comme mosoo ma woon tontu da nga daan ba doon wax waaw rek tey dinaa tontu comme laaj nga ma mu ne alxuraan bi boo koy jàng da nga koy jàng ci yow lañ ko wàcce bul ko jàng di ko jox nit ñi da nga koy jàng soo ci bëggee jëriñu jàng ko wàcce ko ci sa bopp waaye bul ko wàcce ci kaw nit ñi yonent bi li tax mu jëriñu ci mooy da ko wàcce woon ci boppam moo tax mu mun ko dund aaya buy tëkkuwaate xamal yow lay tëkku aaya buy tiitalaate yow la aaya buy wax ci jahannama yow lay waxal aaya buy wax aljanna yow lay waxal ñaareel sunu borom wax na ci alquran afala yatadabbaruuna alquran lu tax alquran bi du ngeen ko seetlu yéen ñi nga xam ne yéen a koy jàng lu tax du ngeen ko settantal tey bokk na ci li tardeel jullit yi mooy alxuraan bi ñu bàyyee benn boroom xam-xam nee na aay liy defar adduna beeg àllaaxira ci yàlla ci ñaari aay dong la ko tënk adduna beeg àllaaxira li koy defar ci ñaari aay dong la ko yàlla tënk mu jaax aaya bi defar adduna mooy wa man ittabaa hudaaya fala yadillu wala yashqa ku topp li ma indi doo sànk doo texee di jeex na boobu mooy defar adduna aaya bi defar àllaaxira mooy wa man aarada an zikri fa inna lahu may seen dankaa jeex na yàlla nee na ku bàyyi li ma indi rek torox ku jàpp ci li ma indi texe ñaari aaya yi defar na àdduna jaru sànnu yàlla nee na ku jàpp ci li ma indi falaa ya dillu wala yasqo ku jàpp ci alquran doo texee di doo sànku tey li texee lan moo tax nit ñi sànku lu tax nit ñi réer di sujjootal ay bàmmeel ak i xërëm di raam ci ay lu kenn xamul di bokkaale ñenn ñi dem ba naan diw moo bind yàlla lu ko waral yàlla bu amee nangam na ko sant diw li tax nit ñi egg foofu mooy al irad bi ma anzala allah yàlla nee na wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka wa naxsuruhu yawma alqiyamati ama allahu akbar yàlla nee na da ngeen di dund dund bu métti yow man xiyaam bu ngeen dekkee ngeen nekk ay silmaxa du ngeen gis seen bët yi laay gumbalaw nga gis waa ji mu ne yaa rabbi li ma xasartani ama yow yàlla tax nga gumbaloo ma te maa ngi doon gis yàlla mu ne bi nga nekkee àdduna da ngaa bàyyi woon sama téere bi moo tax tey fii ma bàyyi la ku dem bàllaaxira gumba ñetteel ku bëgg yàlla bëgg ko mooy al iksaar min zikrillah foog ñuy tudd yàlla yonent bi waxoon na saxaaba ba laa yazaalu lisaanaka ratban li zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub tudd yàlla mooy dalal xel tey xel yi mënuñu dal fitra yi mënuñu noyyi lu tax ah nit ñi taluñu tudd yàlla benn saxaaba nee na dama daan dégg ñu ne nit dina bóof ci alquran 24 heures sur 24 bóof ci téere bi di jàng rek nee na loolu daa ma yéem daa ma yéem ma daan dégg ñu naan mag ñi dañuy jàng alquran 24 sur 24 ma dégg ñu ne mag ñi dañ daan jàng alquran ma ku ku jullee suratul baqara suba suratul baqara mu def ko ñaari rakka affaire boobu jaaxal ma mu ne lamma raaytu nnaas yaati yaakifuuna ala internet mu ne zaala ajabi ba ma gisee tey nit ñi boof ci Facebook boof ci WhatsApp boof ci internet nit ñi boof ci nga gis ku ciy def dundam yëpp internet toog du jóg nee na yéematuma ci ku toog di jàng alxuraan 24 heures sur 24 parce que ay nit a ngi nii di ko def ci Facebook loolu jaaxalatuma kon ku bëgg yàlla bëgg la sellalal sa jaamu jàngal alxuraan tuddal yàlla. waaye ñett ñeenteel al iltizam bi salawaatil xams ku bëgg yàlla bëgg la da ngay julli foog nga julli julli yu juróom préparé ko di ko waajal julli yàlla dafa ne nañ ko taxawal aqimi salaa la wax dañ koy taxawal waaye xoolal ñun ndeysaan am na ci ñoo xam ne bala ñuy julli nga jël ay cours dogal julli am na ñoo xam ne bala ñuy julli ñu ne leen boo julliwulee du ma la ko jox nga doog a jóg julli te julli la ñuy njëkk a xool yowmal qiyaama inna awalu maa yuxaasibu al abd min amalihi yowmal qiyaama assalaa su nit demee yowmal qiyaama li ñuy njëkk a contrôler ci jëfam mooy julli ñun julli la ñu sànni fële li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon axiru wasiyati rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi tëdd sukuraat di dénkaane gémmiñ gi di ŋaang di ñepp gémmiñ gi di ŋaam di ñepp mu dégg sahaaba mu sahaaba yi dégg yonent bi naan assalaa wa ma malakat aymaanukum assalaa wa ma malakat aymaanukum ba kenn déggatul gémmiñ gi ndeysaan ñu gis rek tuññi di yëngatu loolu dong la doon wax assalaa wa ma malakat aymaanukum tey ñun liñ njëkk a bàyyi mooy julli waaw julli nit ñi di sonn di dugg ci yi kenn xamut ay bidaa yoo xam ne ma anzalallahu biha min sultaan bàyyi julli te yonent bi waxoon na sahaaba bi ba mu ko ne damaa bëgg a dugg àjjana ànd ak yow mu ne ko mënuma laa dugal aljanna waaw sallallahu alayhi wa sallam moom dafa gis kenn ci sahaaba yi ku ko bëgg lool bëgg yonent bi lool lool lool yonent bi xool ko ba caag ne ko yow loo bëgg ma ñaanal la yàlla yàlla may la ko mu ne ko as'aluka murafaqatuka fil janna nii ma ànd ak yow ci àdduna dama bëgg nga ñaanal ma yàlla ma ànd ak yow nii biir aljanna yonent bi ne ko mënuma loolu mënuma laa dugal aljanna ñun nag tey mën nañoo dugal ay nit aljanna mën nañoo dugal nit ay aljanna yu dul jeex ñun caabi àjjana yi ñun ñoo ko yore waaw waaw caabi àjjana ndeysaan dem naa benn dëj ñu suuli waa ji ñëwaat rek benn waaye mu ne kii mu ngi àjjana kii daje naa ak diw sànq jox na ko caabeem ba mu dem su ngeen ko gëmee baax na bu ngeen ko gëmul ñun ñi ñun gëm nañ ko ndax diw moo ko wax te diw lu mu wax dëgg la mu ngi àjjana allahu akbar yonent bi nee na rubba qabrin yukaf wa saahibul qabru fi nnaar bëri na bàmmeel bu ñu suul ba pare di wër boroom di ñaan bàmmeel bi fekk boroom bàmmeel baa ngi safara nit ñi ñoom ci kaw ñu ngi ñaan yow yàlla kii mi fekk mi ngi safara allahu akbar xaw ku nekk safara moom mënoo yóbbu kenn ajjana ku bëgg a dugg ajjana da ngay bëgg yàlla da ngay julli julli yu juróom xam nga waa ji ba ko yonent bi ne mënuma loolu waa ji ndeysaan triste yonent bi da ko xool ne ko alayka bi kasarati sujud kon del julli julli lu bëri boo bëggee dugg àjjana julli lu bëri a inni ala nafsika bi kasarati sujud dimbali ma soo demee nga dimbali ma ngay julli lu bëri mooy a inni dimbali ma ala nafsi ci sa bopp ñeenteel juróomeel ku bëgg yàlla bëgg la mooy as sadaqa fi mardatihi da ngay jël ci li la yàlla may nga ciy dimbali miskin yi nga tane nga koy def fi neex yàlla doo jël sa alal di ko def ci ay kenn xamul ay caaxaan tey xoolal sunu dë- dëkk bi alal yëpp ci caaxaan lañ koy def da ngay gis ku romb fi barki dem dañ maa yónnee benn benn vidéo waa ji milliardaire la Inde mu bàyyi nit ñi dem ci jam ca àll ba di di jox ay golo yu mburu golo yi muy dundal golo yi ma ne kii moo alku nga bàyyi nit yi ñi ngi ni lekk ñu naan ñu ñuy feebar ñi nga dem ci àll bi di jox golo yi mu toog ci digg àll bi de golo yi wër ko nag lu ëpp ñetti junni golo ku nekk mu mu koy jox mburu golo yi la ñu ne ndeysaan kii ak a bëri yërmande golo yi lay dundal ma ne kii kay daal ko ku bëgg am yërmande yàlla kay miskin yaa ngi nii nit ñaa ngi nii tey ku taxaw bëgg a dimbali doomu aadama yi doomu aadama yaa ngi nii am nga foo ko def juróom benneel mooy xuduru majalis al imaani wa xalaqaati al ilmi mbokk yi suñu bëggee yàlla bëggunu dañuy delluwaat ci daara yi delluwaat ci jàkka yi delluwaat ci keppaaru xam-xam yi bàyyi keppaaru mariage yeeg bolol yeeg dam yeeg caaxaanu kaay yi nga xam ne amul benn njëriñ toog di jëw di fen di dajale di def bakkaar bay ngoon jot nga ñibbi nañu delluwaat ci keppaaru xam-xam yi huduru majalisil iman ñu dellu ci place yi nga xam ne ku fa teew sa ngëm yàlla yokk loolu la saxaaba yi daan def ndeysaan ñoom saa yu nit wàccoon sa soxna ñaar rek la lay laaj ndax li nga indi dagan na nga ne waaw mu ne la tey ñaata aaya nga jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak hadis ñun ñun ñun luy sunu mbir toog ci place yi gëm yàlla ak xalaqatul ilmi gàddu téere yi dem jàngi bokk na ci li nu tardeel mooy bëgg a nekk ay jullit te duñ jàng fatiha sax duñ ko mën fatiha fatiha fatiha sax yenn saa nga dañu ne nañ jàng fatiha bu sell fatiha bu sellul daam nañ jàng ñetti xulwa yu sell xulwa bu sellul fu ñu ko gis ah lu tax ñu naan bu sell mooy dañuy bañ gaa yi damm yax yi te alxuraan boo ko yàqee nekkatul alxuraan même fatiha bi boo ko yàqee nekkatul fatiha te xam ngeen ne 114 saar yëpp fatiha mooy fardul ayn lu jullit wala mokkal mbokk jullit yi bëgg yàlla tabaraka wa taala juróom-ñaareel mooy al ibtiaad anil fasiqin su fekkee nit bëgg na yàlla bëgg ko day sori bandi yi day sori ñu bon ñi wa mulazamati salihin mu ànd ak nit yu baax yi al ihsan ila al akharin mu rafetal ci ñeneen ñi asabru wal rida bil qadar mu nangu ndogal yi ko dal dafa neex dafa naqari mu nangu ko lii mooy asbaab yu nga xam ne muin ala mahabbatillah am na leneen mooy mawaani mahabbatillah am na loo xam ne day tere ku ko mel wala ku koy def yàlla du la bëgg ba yow a a- terminé yow yàlla du la bëgg pare nga mooy lan iradatu dunya fi amalil axira sa jëf ji ngay jëf ci àdduna jëf ji ngay jëf nga xam ne yàllaa tax nga war ko def nga koy def ngir àdduna ba waree julli wala nga julli ngir yàlla déedéet da ngay julli ah naa dem julli ji waaye ndax gars yi ne man day dem katu jàkkalaa ah yow pare nga ñaareel mooy aljafa min kalamillahi taala wa hijrati sori du muy téere yàlla bi lu nekk di nga ko liir xoola ni ñuy jaayee journaux yi xoola ni ñuy jaayee yeneen téere yi da ngay romb ci marché gars yi boof ci ay téere ku nekk mel ne waaye doo gis kuy jàng alxuraan képp ku dul jàng alxuraan yow xamal ne yow pare nga doo am mbëggeelu yàlla ku bëgg yàlla bëgg la da ngay dëkk ci alxuraan atahaawun fil amalil faraid kuy sàggane farata yi koo xam ne julli yi yitteelu la amul benn waxtu booy julli yow munoo fexe ba am ya mbëggeelu yàlla tabaraka wa taala nisyaanu zikrillah ku dul tudd yàlla kooku munul am cofeeli yàlla asux wa adamu tasadduq li musaadati almuhtajin ku dul saraxe doo dimbali miskin yi amalul maasi wal inshigaalu bil malaahi di bakkaar guddeeg bëccëg taqoo place yu bon yi fun la gis rek ci place bu sell di lan lay gis kenn du la gis ci place bu baax mbir yi ku mel nii munoo am mbëggeelu yàlla mulazamatu ahlul fasadi wal ghafla di ànd ak ñi nga xam ne dañoo dummooyu yàlla ñi nga xam ne ay yàqkat lañ képp kuy ànd ak yàqkat yi di ànd ak ñiy dummooyu yàlla munoo am mbëggeelu yàlla tabaraka wa taala mbokk jullit yi ku bàyyee laaya biir say mbokk jullit munoo am mbëggeelu yàlla képp koo xam ne sa bopp moo la gënal nit ñi munoo am mbëggeelu yàlla képp kuy fëgg dënnam ah su ko musiba laalee muy yuuxoo ka salleeru fu nekk ñëpp dégg ko kooku munoo am mbëggeelu yàlla tabaraka wa taala yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko mbokk yi comme nuñ ko baaxoo de buñ paree julli am nañ fi sunu ñaari mbokk kenn ki ordonnance am bi yàgg na fi trop kenn ki moom daanaka dafa cancer Euh, yàlla rek a xam waaye nit am na fu muy toll ci feebar day loolu olof yi di wax ne ndoxam dong lay naan waaye ku sonn la ndax ay ordonnance lay naan ordonnance yi saa yu jeexee fokk ñu jëndalaat ko ko sinon xam ngeen la ciy tegu dañ ne woon vendredi tey bi sax dañuy tëwal ndax bi passé laajoon nañ waaye léeg-léeg euh, doo mën ab jullit ñëw ci yow wax la yenn kaay yi te nga xam ko nga teg ci bët nga dummóoyu ko bañ koo wax jullit yi ndax kat al muslim axul muslim buñ paree julli incha allah mbokk yooyu ñu wax ku leen mën a dimbali incha allah ci li ko yàlla jox yal na ko yàlla def yal na yàlla fay leen inna allaha fi awni al abd ma kaana al abd fi awni axihi qumu ila salatikum yarhamukum allah